ñu nangul ko secteur général bi nangul ko syndicat bi wax leen ni ñëwuñu pour jàppale leen mais dañ jàppale suñu bopp ndaxte réew mi bu ñu seetaanee ba liggéey bi nërmeelu mooy réew mi nërmeelu te li xew Sénégal fan yi walla at yi mënatul a continuer ñuy toog di seetaan ay entreprise nationale ñu leen di rey benn par benn di yóbbu les liggéeykat yi au chômage kooku kenn du ko fi nangu te ci loolu la nguuru président Macky Sall nekk depuis plusieurs années liggéeykat yi yépp ci secteur yoo mën a jël presque ñu ngi ci ay jafe-jafe te liggéeykat yi jafe-jafe yooyu ñu leen dugal ñoom defuñu ko parce que ñoom danoo yore seeni liggéey def seen formation nous avons jox leen ñuy nous ñu jël ay politiciens jox leen ay entreprise nationale ñu nekk fa des politique politicienne parce que moo ni leen ku ci sa secteur dootuma la renouveler sa sa nomination Nous nekk di yàq entreprise nationale yi ba liggéeykat yépp c'est avenir nekk en danger du hypothèque l'avenir du pays parce que c'est le travail qui produit la richesse personne ne l'acceptera dans ce pays donc man je demande... demander Guy Marius Sagna junj na ko sànq liggéeykatu Sénégal seeni jafe-jafe mooy réew moo dem dañoo am lu ñuy tudde ay centrale syndicale parce que ku ci nekk sa secteur nga mën a xeex waaye bu ñëwee ci réew mi nga xam ne économie nationale bi entreprise yëpp muy entreprise publique yi comme privé yi dañoo am ay syndicats yi ñu bokk ab ñu tudde leen central syndicale centrale syndicale mooy boole secteur yu bari mais ku ci nekk poste day nekk di xeex jàngalekat yi nekk di xeex régie publicitaire yi nekk di xeex ku ci yaa ngi sa secteur mais ki boole liggéeykat yooyu yëpp ñu ngi leen tuddee ay centrale syndicale te ñeenti centrale syndicale yi ci ëpp doole ñu tudde leen la CNTS nga xam moo ëpp doole ak UNSAS ak CNTS FC ak euh, ak euh, ak CSA ñoom ñeent ñoo war lënkaloo yërëm jàngal yërëm liggéeykat yi aar leen ba nga xam ne daal leen mën a yiir ba benn patronat du leen mën a jaay doole ba benn état du leen mën a jaay doole kon ñoom central yooyu ñoom ñoo nasax kon nag ñun liggéey yi ñoo war a jël suñuy responsabilité jël suñuy responsabilité nag mooy ñu waxtaan suñu biir lënkale doole bi taxaw jaay jaayante ak ñoom parce que suñu avenir ñu nang kenn di ko hypothéquer ba nam ñu toog lay seetaan donc man li may demander mooy que ni mu nekk la les travailleurs de la post mu nek les travailleurs des autres secteurs nañu bolé suñ ñu def une grande mobilisation nationale des travailleurs loolu lañu wara def jàmmaarloo ak nguru président Macky bu ko dans les différents secteurs ñu exiger

quatre poste duñ nangu ñu licencier ko fi on exige on exige que le président de la république Macky Sall reprenne en main la poste dolel poste gis nañ fi ci service yu bari ñu mënon ko jox poste pour dolel ko président Macky Sall jox ko yeneen entreprise étrangère yu nekk fi Sénégal loolu mënatul a continuer ba ci bir mbas mi gis nañ ñu jël ay transfert d'argent yo xamné poste amna poste finance mën na ko def ñu dem tégué né poste finance jox ay entreprise étrangère pour rey l'entreprise sénégalaise kooku protéger nos entreprises comme la poste faire ce qu'on appelle la préférence nationale dire le service du courrier poste ñu dem di alors que état Sénégal su ko mu entreprise euh, euh, euh, service état le service poste sanctionner travailler avec la poste la poste poste poste aujourd'hui c'est une option stratégique que le président de la République Macky Sall a décidé pour tuer l'entreprise sénégalaise te loolu kenn donc on que je wax dire, c'est au nom de mon organisation syndicale nous marquons notre accord pour que ñu àndandoo ñun liggéeykat yi parce que mun ñu toog central syndicale yi di nous ñuy ren di kati ben par ben nous ñu toog di seetaan kon ñun liggéeykat kati nous avons une jël suñu responsabilité secteur nous ñu lënkaloo bolé suñu delloo bu ko defee ñu jàmmal lu am nguur président dans le comme je le dis très souvent il faut qu'on y aille ensemble aujourd'hui l'heure de la mobilisation et de la solidarité a sonné on ne peut pas laisser les travailleurs de la poste dans leur secteur être ligotés être malmenés, être licenciés, et ensuite, quand ils termineront avec la poste, ils iront avec les autres secteurs, secteur par secteur, ils vont liquider les travailleurs. Donc c'est le moment pour les travailleurs de comprendre que c'est la solidarité qui nous permettra de sortir de cette situation. Donc nous demandons au nom de notre organisation, que les différents secrétaires généraux se parlent, qu'on mette en place une stratégie de défense des intérêts matériels et, moraux des travailleurs du Sénégal, qu'il y ait une synergie d'action pour qu'ensemble qu'on puisse organiser une marche nationale des travailleurs du Sénégal pour exiger la reprise en main des entreprises sénégalaises que le président Macky Sall comprenne que c'est le, travail qui produit la richesse. Aujourd'hui, ils sont en train de préparer la liquidation des travaux du Sénégal. Nous ne saurions l'accepter, donc nous devons rester solidaires parce que les centrales syndicales majeures ont failli, la synthèse devait être à vos, à vos côtés, l'UNSA devait être à vos côtés, la CSA devait être à vos côtés. Et c'est ça que nous exigeons de nos centrales syndicales. Puisqu'ils ne veulent pas le faire, nous demandons aux travailleurs de faire cette unité autour de l'action revendicative pour exiger la reprise en main des entreprises nationales, pour exiger la préservation, la sauvegarde des, des emplois. Parce que nous ne saurions accepter qu'un seul, qu'un seul travailleur, qu'un seul travailleur de la poste soit licencié. Nous ne l'accepterons pas. Donc, nous, nous, comme sénégalais yi ñu bàyyi layam layam bi te taxaw liggéey parce que liggéey mooy taxaw xeex àndandoo bu ko defee jaay doole bi ñu bëgg a def liggéeykat yi ñun ñëpp ñu topp seen ginnaaw donc ñu fii lu ñu fi indi tey mooy wax liggéeykatu poste yi ni dinañ taxaw seen wet lii nu bëgg pour jaay leen doole licencié leen te yéen defu leen dara ay politiciens ñoo ñëw yàq entreprise bi président Macky Sall dana leen dax bàyyi entreprise bi ñu jël un directeur général boo xam si mën na def liggéey bi correctement ñu doxalaat entreprise bi état Sénégal soppi doxalin jox joxaat doole poste joxaat doole liggéeykatu poste yi ba ku ci nekk dellu fa nga nekkoon bu ko defee poste gën a am doole bu ko defee économie sénégalaise reposer sur la poste loolu lañ bëgg te loolu bu ñu boolee suñu doole mën nañ ko am doom maay sax